bu baax a baax a baax di nuyu mbooleem ñi fi teew ñëpp di waajuru donga yeeg donga yeeg mbokki donga yi mbokk lan daara jeeg mbokki dëkkandoo yi ñëpp ngi leen di sant leen gërëm ginnaaw ban sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala ba noppi julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di nuyu mbooloo mi fi nekk di leen sant waaye ñi ngi sant suñu ñaari waajur bu baax a baax di sant tamit sëriñ Muudu Maamun Mbàkke mi nga xam ne mooy suñu wasila daaw ci heure bi fekkoon fi ren mu am ngànt ba yónnee ci soxna yi ñing koy sant bu baaxa baax momit waye di sant Serigne salim Mbacke mi nga xane moy suñu Serigne di sant Serigne salim Mbacke mi nga xane moy Serigne suñu Serigne ci daara yi ngaa bu ñu tuddé ko bis bi di am mbégte bu baax lool ba tax ciofel gën am ci euh fess suñu xol ba ñu bëgg koo feeñal moom it ci baas bi ñing koy sant bu baaxa baax di ñaan yalla mbégte mi yalla na jëm kanam waye di sant Serigne bara Mbacke Afia mi nga xamna ne tamit moom la dara jale won bis bi moom it wax deug yalla yoni na ma bari ñing koy sant bax waye waaye dafa dafa dafa am gant wa dafa am gant muy Serigne bara ñing koy sant baxa bax ak mbollem wa Serigne Afia yëpp di sant tamit Serigne Cheikhouna Mbacke suñu re mu fi bayiko ko ni di di wat ca daraja, ja ñing koy sant bax tax waye rafet na di sant wa dara yi Serigne Seydina Muxtaar Ñas momit ñom ñep tew nañ comme que maanaam xale bi dañoo bëgg mu barkeellu ci njàng mi rek ci kanamu sëñ bi te xam naa ne xale bi bu barkeeloo ci kanamu sëñ bi ba noppi bañ leeral tuuti rek daanaka sëñ bi day ñaan te bu ñaanee euh, dañuy daal di tëj jotaay bi ndax sëñ bi daa bëgg ñaan moo tax ñuy profitoo di leeral ak di sant waaye ñi ngi sant waa daara sëriñ naa Muxtaar Ñas di sant soppe yi bu baax a baax a baax a baax soppe yi nag buñ ko waxee mooy waa koñ beek ñëpp ci lañ waye rawatina na wa yi nga xamne ci suba ba legi ñing ci wañu wi di togg ci ndékki yeeg añ yek ba legi ni seenub coono jeexagut ni ngi leen sant kon baax baax ñom soppé waye rawatina waa ak wa baas bi sama xarit yi nga xamne ak ak sama dëkkandoog sama wóolare yi nga xamne ci ñom ci fajar ba legi ñu and liggey bi ne ci baas bi ñoy ngi leen sant bu baax baax waye ñi sant tamit wa daara yi bu Serigne salim Mbacke mbollem ñi fa juggé ñepp ñi leen sant leen gëreem ci seen teewaay waaye di sant ñi bëggoon a ñëw te am ngànt di sant tamit élèves yi maa ngi sant élèves bu baax ndaxte euh, la la njëkk njëkk may sant parents d'élèves yi maa ngi sant élèves bu baax ndax ñoom it jàmbaar lan lool ndax damay wax ne bëri na sama classe gi ñoo xam ne fii fii élèves yi toll xam li ñu xam boo demee ci daaray Sëriñ Ablaay Xummaak daaray Sëriñ Saam ak daaray Maam Cerno Baay Sëriñ Si la ñëpp ci am bëri ñoo xam ne boo fa demee fi mu toll ci daara ja fii gone yi toll ci at xam lañ xam ci xam-xam ak def ci yitte xam lu baax ñun bañ cay toll dimension boobu tolluñ ko fa woon. buñ ko xoolee ci suñu waajur tamit fii xale yi toll bañ fay toll suñu waajur fii ñu toll ci njàng xamuñ fa boo ko toppee ba ci maam yi ñoom comme ñoom ñu ñu ëppagoon avantage te fi ñu toll ñun buñ fekkee bañ fa tollee juróom point lañ làqoon ñoom xale yu ndey buñ fi tollee juróom benn ba juróom ñaar lañ làq kon ñoom it moo tax ma leen di sante fofu ñom élèves di leen wax ñu gor lu a baax ay xalé ngeen way damay wax ni moy faral di waxtane ñom xalé teewu ta bëgg lu baax di leen sant di leen encourager ngeen gëna bëgg lu baax waye di sante parents de elevi yi ñoom it wax deug yalla ñu and and bu rafet waye ginnaaw bi lolu jalle timit may def ben leral jëmele ko ci bulus yi ak parents d'élèves yi ñu ko seqal maanaam ak ak ak ak ak mbooleem coono yi bàyyeekoo ci daara ji moo xam jëm ci suñ daara beeg jógee ci parents d'élèves jëm ci daara ji rawatina du jëm ci conférence bi ak bulus yi ñu ciy leeral xam ne maanaam li ko waral lépp lépp lépp lenn rek la muy bëgg sagal bëgg sagal seeni doom rek waaw loolu mu manqué leeral parents d'élèves yi bu baax a baax muy bu góor ak bu jigéen xale yi bulus yi leen di defal ak man boo xale yi bulus yi ma leen di defal bis beek lépp bëgg a sagal seeni doom donc te xam naa ne yéen a jooju ma am moom la sëñ Abdoulaye Xumma am moom la sëñ Sam am bis bi amul lenn lu ñu amal yitte lu sagal seen doom rek waaw ndaxte ci gàttal ci leeral pour ñu mën a dégg lool ci xel rek daanaka waajur wu ne 5000 francs la joxeel doomam ci bulus te man awma ci doom te dugal naa sama ñetti junni te xooluma ko jàmbatuma ko ak leneen leneen bis bi doog a ñëw te loolu lépp dama kaa def ngir jëmmi alxuraan wa pour ñu xam manam bis bi ak lepp lu mi domé rek li ci tax ñu ci waxtaan ak paray di ci leer lool moy bëgg sagal seen rek bëgg sagal seen ta xamna timit ku jang alcorane loko sagal rek doyut lool rek lañ dublu ci bis bi ak bëgg ko taral waye timi ñuy leral jëm ci yaay daara yi manam daara ji legi dafa am ay yaay daara ma bëggoon ko leral waxtaan nañ ci nafa dama ko bëggoon leral ci mbolo mi ku ci melni ya daba joob ak ya farum bay ak soxna aw bak ak yàkki na sàmm léegi yaay daara yi daara ji nga ma lu mën di xew ci daara ji muy xew-xew bu mag bu ndaw bu neex ak bu naqar bu mën doon dañu si ànd ak ñoom lépp lu fi mën di xew tamit ñu jël jël décision di ko def ginnaaw bañ ci waxtaan ñaari waajur yeeg bàyyi xaade mi euh, bàyyi daara ji ba noppi dañ ciy ak ñi nga xam ne ñeent ñoo ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy yaay daara ji ñu waxtaan ñoom ñu jàll information bi ñu jël ci daara ji bu information boo xam tamit bu ñu fiy din la tamit dañ ciy waxtaan ak ñoom ñu jàll ko ba tey tamit yaay daara yooyu lépp luy xew ci daara ji ñoom dañ fi yenn du ci jàpp ñoom daal bu ñoom ñooy suñu loxo ndeyjoor mën na waaw ak mbooleem luy luy luy xew ci daara ji dañu ciy jàpp ak ak ak ak information buy dem ñoo koy leeral ba tey may leeral foofu parents d'élèves ne leen ñu nit maanaam daara ji di daara Ngabou léegi maanaam bokk na suñuy feet xale bi fu wàccee alxuraan bañ koy toggale laaxa yu ni demee ñun loolu feet lañ koy def bis boobu duñ ko jàng waaw daanaka nag lu woo ko tak feet événement yi loolu mooy suñu feet ñun bépp xale boo xam ne ndax loolu tamit gis nañ ne maanaam gën dara gën a koo màgg dara gën a koo kawe xale bi nga jàng bi wàcc alxuraan yow da nga sa xol day sedd lool boo moo bu mokkalee nag moom mooy la gën a waaye wàcc alxuraan gi rek ñun feet lañ nga def képp ku wàcc alxuraan ban lay toggale laax suur boobu tamit maanaam euh, ñi ci daara ji ànd ak toggkatu laax yi buñ ko waaw suur boobu tamit ñun feet lañ nga def léegi duñ ko jàng yooyu daal laa bëggoon a am lu may leeral ci parents d'élèves yi ñu waxtaane waat ko mboolem loolu bu jàllee ñuy sant ñin andal liggéey bi ñep di leen sant bu baaxa baaxa baax di wax yalla suñu borom mi nga xamne motax ñu tew fi yalla ñu fay aw yiw ñun ñep kon nak ñu jox seigne basirou Touré mu yeggal liggéey bi xalé bi daal di tari ci kanamu seigne bi ñu leeral tuti après seigne bi daal di waxtaan sànni ci kàddu ñu daal di ñaan jërë ngeen jëf billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir خلقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا صفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله لا بما ساء وزع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله تكبير تكبير جلسي يا رب باخ Kan sering selalu hambat ke mom sering Amdi mom sohna namai, mom sering tua, di selalu hambat ke di jauh ini sering selalu Tuubaa Ngaaw ñu na leen di nuyu ci kàddoom di leen siyaare bu baax di leen baalu di ndax ku ne xam na ne jataay bi gis na loolu te it am na dayoo te maam Cerno mii nga xam ne dafay jël cër bi séddee ko ko te yitte yu bari lool lool rek moo ko gàllankooroon waaye bu fekkoon ne du woon tëq-tëqi jamono kon day ànd ak yéen teew bis ba mu yegg ni ngeen ko teewee taxawee ko noonu la koy defee ndax lépp loo xam ne lu ngeen ci def rek moom ngeen ko defal ndax maam Cerno am maam Cerno ma sëriñ bi da leen a boole woon muy sëriñ Saliou da leen a boole woon yëkkati maam Cerno mi teg ci loxoom mu def ci moom lu baree bari ci wàllum yar ci wàllum xam-xam ak ci anam buñ mën a nekkee ak doomu aadama moom sëriñ bi mu liggéey ci ci diggante maam Cerno liggéey boo xam ne jaral na maam ciorno mu jëm ko delo ñukal ba tax mu def lu rafet lii lool nak sëriñ bi neena na gis na ko bu baax ta xamna na dayo bi xamna yi fi ko cër bi toll neena dalay baye ak sëriñ bi lepp lo xamne yene nga ko ci alquran sun borom gatanu la ca la ci des nee mi ngi sant bu baax mbokk talib yi nga xamne ñom la fekk ci ci jotaay bi mo xam goor lañ mo xam ndax jamono ji tang na lol tay xat na waaye dañoo bàyyi seen nit yëpp ñu tok di diglu alquran ci kaddu yu am solo yi nga xamne mom la ko do yi doon yekati muy lu neex lu neex a ku ne def na yitte ci yi góorgóor na ci kem katanam, ndax jëmmi jangal alquran dafa metti na nga bokk boole ak xalé bo xamne xamul dara nga def ci mom alquran def ci mom tajwid bëgg sifurlo ben riwaya ci riwaya yi mu ko sorantewu ci loola bëgg jang ta te loola jëmmi jëmmi jàngal ko alquran rek dafa metti waxantuma nga nga bëgg ci boole yenen ak yenen te ku ne xam na ne ku dégg jangum xale ya xam ne mi ngi gorlu ci loolu yeen ñi nga xam ne yéenay woy juru xale yi yeen ko ci jappale bu baax te xam ne gone moom gone rek la fépp foo ko foo ko foo ko foo ko tam gis ne lii sa yitte la dana wommatu jëm ci waaye bu fekkee da ko koo mat jëme ko ca daara ja te yow sa yitte nekkul ca daara ja ni ko sobantalee rek la ko xale bi di sobantalee ndax kenn ku ci nekk sa wayjur sa royukaay lay doon lam gis nga di ko def rek ca loolu lay copier kon ngeen jàppale xale yi bu baax ci daara yi loolu leen sëriñ bi di sant di sant it maam Thierno mii nga xam ne moom itam bi mu jógee ca daara ja amul jenn yitte loolu la mu fa nekkee woon muy jàng alxuraan ak di ko jàngale ba mu génnee mu nekk ci lii nekkaat ci. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax xayrukum man taxallama alxuraana wa xallama moo bu ko neexoon mën naa wax xayrukum man xara alxuraana wa waaye waxut loolu ki ko xam la wax. bu ko neexoon mu ne ki ko jàng di ko jàngale waaye jàng alxuraan di ko jàngale rek dafa doyut alxuraan dafa doon lu ñu war a xam ndax nit ki xam alxuraan mi ngi tàmbalee ci nga xam jëmmi xale bi nga yor mooy kan ak ban méthode ngay jaar moom ba mën a am ci moom li nga bëgg muy nga fexe mu mën alxuraan te doo sonn moom du sonn ndax loolu mën a nekk la ndax boo seetloo ñun programme bi ñuy jàngalee naar yi rawatina Maroc wala Libye ñooñu ëppale lu ñuy mokkal alquran fuuf dabuñu leen sax ci wax te ñoom ñun ni ñuy jàngale ñoom dañ koy jàngale ñoom seenum jàngaleen ab diggante rek lay doon daanaka boo seetloo surna bi lépp man nga ne huit de temps lañ ciy jàng mu jeex ñun nag boo seetloo surna bi douze heures de yëpp wala vingt-quatre heures yëpp dañ koy jàng boo seetloo ndax xale bi dana xëy huit heures mu tàmbalee jàng ba douze heures demi mu wàcc 3 heures mu dugg wala 3 heures et demi ba 10 ba 18 heures mu wàcc duggaat 19 heures ba 22 heures wala 21 heures mu wàcc nopp noppalu diggante bu gàtt 4 heures mu jugaat loolu boo seetloo yow noppalu woo xale bi noppalu wut bu yàggee nag xelum xale bi mooy mujj tëju ndax dana mujj manqué am nooflaay dana mujj manqué ay nelaw ba xelam du mën a xalaat yow li nga bëgg a def ci moom loola it lu jar a bàyyi xel la ci suñ daara yi nga xam ne dañuy jàngale ñu bàyyi xel waxtu yi nga xam ne dañ koy jàng buñ ko mënee wàññi ñu wàññi ko fexe ba tëral programme boo xam ne li ngay jàng li ngay jàngal xale bi dana mën a dugg ci moom te moom du sonn yow doo sonn loola kenn ku ci nekk yaa xam ni ngay tojee sa bopp jinax waaye bu fekkee ne suñ daara yi booloo nañu tey sottantee xalaat mën naa am xalaat bu rafet dana ci juddoo boo xam ne danañ ko mën a jëfandikoo ba suñ daara bu nekk gis sa bopp am na ci mbokk yi ku doon wax léegi ne maam Thierno li ci ëpp ci ñu koy fay daanaka boo seetloo mën naa am 1500 la wala du ko mat man de fee ba nekk dafa jàngale sëriñ daara yi fa nekk yëpp amul ku ci fayiku lu gën a yées 4000 3500 amul daara yëpp nag ya fa nekk li ko waral mooy niñ def mooy daara yi nga xam ne dañ faa nekk ca gox ba dañoo war a fexe ba am lu mel ni benn union muy benn kuréel boo xam ne dañ ciy daje. di waxtan di nasakan ci kurel bobu bu waxtu beur jotee ñom ñoy beurando ñooy bokk benn bis buñu beur ñooy bokk benn bis buñu weddi buñu waree yok seen fayit ñooy wër ñoo ba waxtan ne ah fay gi war nañ ko jamono toll na ci nangam war nañu mëna def nangam ñom ñepp ñu maasati bu fekkee ne da nga jëlé sa xalé ci daara maam cerno ji yóbbu ko ci sama daara man bala ma mëna am sañ-sañ jël xalé damay wo maam cerno ba paré ne ko kat dama fay adi doomam taw waxna ne sa daara la doon jangé lan moko fi jëlé ak lutax mu jëgé fi bu ko defee maam Thierno ne la nangam ak nangam la fi def bu fekkee ne dégâts la yow boo xam ne waroo koo mën a jël maam Thierno da wax carrément ne la ah moom kat boo ko jëlee nangam ak nangam bu ko defee yow nga daal xam ne man xale bi kat bu ma ko jëlee mën naa ci am jafe-jafe naka da ngay obligé rek bàyyiwaat ko mu dem. bu fekkee nag xale la boo xam ne yàlla dafa dogal wurta mën a am njàngam wurta mën a yeggee ci maam Thierno wax ne la ah moom kat lool waaye xam naa nag gàllankoor yi nangam ak nangam rek la am. bu ko defee yow bu fekkee ne loo mën a toloré la nga bàyyi ko mu nekk sa daara mu continuer jàng fekk déggoo nga ci ak maam Thierno nga ci ak maam Thierno ba pare. waaye ci misaal bu fekkee ne xale bi dafa jóge sama daara ñëw ci daara yi maam Thierno man ma yàkkam ci loolu jël ko ngir ne naa naa am dongo yu bari dana dox sama diggante ak maam Thierno ci diggu woo xam ne dana ma jàppal loo xam ne donte jàkkaarloo wutal man wax ma ko waaye dana ko jàpp ci ne kii kat nu mën a def ba sama daara fayit lay def. nu maa def ba sama daara dellu ginnaaw ci pexe yooyu la nekk bu ko defee nag ak noonu day mujj dugg seen diggante waaye lu fee génne ngi waxtaan di sottantee xalaat di tër seen programme yoo xam ne yéen a koy bokk réeroo du am te li ngeen bëgg mën naa am mooy ci yokk ak fay googu ngeen doon wax loolu it ab xalaat la boo xam ne bari na daara yoo xam ne ñu ngi koy doxee donte sax ñi nga xam ne dañu yëngu ci wàllu àddina rek dañ koy doxee ndax bépp école boo dem am na lu ñuy wax syndicat euh, syndicat mooy dañuy dañoo am ñoo xam ne ñooy daje bu ñu amee soxla jaaree ko ci kenn kooko jotal soxla soosu. loolu nag ñeneen ñi nga xam ne dañuy yëngu ci mboolem mbooloo yëpp dañuy am programme yu mel noonu lan moo tax nag ñi nga xam ne dañu yëngu ci daara yi waruñ ko mën a am waaye kenn ku nekk rek toog sa bopp nga xam ne mën ngaa xëy suba ba ngoon gone gi yow saa boo ko pinee jàppal ne pini nga sa bopp ndax waxtu wam fay toog bëgg xale bi mokkal yooyu ta il faut nga ci wetam saa jugee rek xale bi tàmbalee foofu kon nak fexé ba xalé bi di jang ta du son dafa bok ci programme mu lolé loolu it suñu xalaatu bopp loolu boo xam ñun ñoko ci ron doli ndegam dafa guddi te sëriñ bi dafa wara déllu waat ngaabu tax ku ne xam na euh tay ji di aljuma dafa jité ji won ta fé muy jité ak fam wara ñibé xawa ñibbi xaw tax duñ mëna a kaddu gu lu bari kaddu yi sant rek la won yoo xam ne dafa bàyyeekoon ci sëriñ bi jëm ci maam Thierno di leen xamal ne moom mii kat euh, diir ba nga xam ne moom la nekk ci ay loxoom mu yëngu ci moom ci njàng ku neexoon a jubbanti la ku neexoon a nekkal la ku dégg ndigal la te it ku xamoon ne sëriñ bi leen boole la woon ndax chaque jour li may wax rek sëriñ Saliou mi nga xam ne moom la ñëpp yaakaar mu joxañ ñu sëriñ bii bu fekkoon ne leer na ko nañ ñi ne mënul ci ak njabootam du ko joxañ kenn moo ko yoral waaye xam ne yërmande ju toll ne ji mu am ci njaboot gi moom la ci sëriñ bi am moo tax mu bàyyee ko daara ji bàyyee ko lépp wëlbati ko waat jël ak njabootam jox euh, teg leen fa ba noppi wëlbati ko joxañ leen ko ñu topp ci ginnaawam yërmande joojee ba tey nag mooy wéy ak laybir geeg woyof gi ni ngeen ko gisee ni du ngeen ci takk rek loo ci takk rek weesu na ko te loolu it damaa yaakaar ne loolu liggéey liggéeyu Serigne Saliou rek la boo xam ne moom la mooñaale ci jëmmam ji mu di ko doxee loola it ñun itam ci sunu sant bu bopp dañ koy cant dañ koy sant ndax ñun ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon nekk ca daara ja ameel nañ ko cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax bi ñu sëriñ bi boolee ak moom ba sëriñ bi woon ñu ginnaaw ci saahir rëcc benn yoon loo xam ne moom la sëriñ bi boole woon ak moom dafa taxaw kem kàttanam lépp loo xam ne yëg na ko ci ci mbokki donga yi lu ñu xewle ak lu man di doon dana ci taxaw kem kàttanam def ca la mu man jamono nag moo bindoo noo xam ne ku nekk ci jamono war a mën a xool doxinu jamono la ca am njariñ nga di ko jëfandikoo di xool la ca la ca juunu nga di ko moytandiku ndax sëñ mbay sëñ bay jaxata dafa waxoon ci ay bayit wax ne àdduna day werengiku jamono day werengiku ku toog ci luy werengiku loo bañ bañit werengiku ndegam jamono nag moo toll foofu waruñoo toog ci ruq yi rek jàpp ne na maam ña doon jàngalee na la ñuy jàngalee ba nëga ni wala méthode ba maam ya doon doxalee noonu la ñuy doxalee ba nëga ni jamono sensé na soppiku na dañoo war a fexe moderniser daara yi moderniser daara yi nag bi ceegi ne état moo la koy defal yow sa jëmmi bopp yi waaye sa bopp ba pare doo ko moderniser sa daara yow sa bopp boo adapté woo ak jamono danga sa daara mën naa adapté woo ak jamono waaye bu fekkee ne yow jamono dafa dem bu yàgg wàcc la mënoo fexe fexe ba tollale sa jam sa daara ak jamono kon loolu jar nañu bàyyi ko xel baax maa ngi jéggulu Eh, Sering bi dañoo jox kàddu gi rek ta manewuñ ko waaye ñi ngi sant ñep jeen gërëm jërë ngeen jëf alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jëf serigne Abdou Khadir kàddu yi mate na lool kon bu ko rek ñu massé diglu waaw xamna naa mam tierno Euh, sëriñ bi moo doon siyaar rek jëla jox ab barkeeloom ci liggéey bi ndax ni ko waxee léegi rek euh, li waroon ci bis bi lépp moo ko war a def ndax ci ak njabootam nga bokk te bi xawle lii yaakaar naa ne bokk na ci ñi ngi ko njëkk a wax kon lépp loo xam ne luñ ci war a def moom moo ko war a def lii na muy ab barkeelu boo xam ne xeeb na ko lool Euh, di ñaan suñu borom mu fekkloo ñu at yu bëree bari ba lépp loo xam ne am na yéene def ko ci bis bi mu def ko kem kàttanam nee na mi ngi la koy siyaare bu baax euh, xam naa bëriwut waaye nee na euh, da koy barkeeloo ci bis bi rek ngir xam ne lu mënta ñàkk la waaye bu sañoon li ci war a def lépp moom moo koy def jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi tomb bi jërëjëf sëñ Abdou Khadir di yàlla kaddu yi yu matal na ba nga ci xalaat bu am solo boo xam bu ko sëriñ daara yëpp jëfandikoo dana am solo lool ci daara kon bu ko defee rek ñu bi na bi ñaan Amin. Amen. Amin. Amin.